mbokk yi eh, tey jii maa ngi ci camp Abdou Diassé ñëw fii ak DGPN ak eh, service yi nga xam ne ci police bi la bokk luñu fi gis dal na xel ndax eh, suñu première visite mooy di ñu seet matériel yi nga xam ne police am na ko police li mu fi am comme matériel mën nañu wax ne loolu mën na ñu permettre d'agir su fekkente ne ay difficultés am na war nañ ko renforcer mais déjà équipement yi c'est déjà mën nañ wax ni que c'est déjà suffisant gannaaw loolu def nañu yeneen visite yu am solo lu jëm ci nekki ni policier yi ñaari bâtiment de huit étages yi nga xam ne mën na jël lu tol deux mille éléments mu ngi en construction dul yàgg loolu dina pare mais am na beneen bâtiment yi nga xam ne R plus deux la dañ ko jagleel jigéen ñi ndax il faut fair la séparation discrimination moo amoon mais defe naa ne loolu nañ ko régler lu ñu ciy jëlee mooy di léegi regroupement yi day gën a yomb parce que ñëpp ñu ngi ci sur place et seen intervention bi gën a gaaw su dee am na ay situation yu doy waar gannaaw loolu am na li nga xam ne visité naa ko mooy brigade canine brigade bi ay xaj ñoo fa nekk mais seen intervention bi ñu defee simulation léegi gis nañu gis nañu que seen intervention mën na nekk une intervention efficace ci li jëm ci poursuite ci wàllu terrorisme ak euh, drogue def nañ tamit euh, gis nañ ci seen formation bi ni mu demee formation bu am solo la ñu duggee ci beneen centre bu am solo mooy centre de tir foofu la ñu am suñu tireur d'élite ñu bare foofu la ñuy entraîner même gendarmerie foofu lay entraîner ñu gis fa tamit euh, li nga xam ne mooy BIP mooy brigade polyvalente d'intervention mooy euh, élément d'élite yi nga xam ne police loolu moo ko am ñooñu seen formation ñu ngi koy def ay partenaires ay partenaires partenaires yi nga xam ne ñu ngi leen di former te mën nañu intervenir euh, su ay délégations étrangères ñu ngi fii intervenir aussi ci frontières yi euh, mën nañ wax ni ñoom seen possibilité d'intervention euh, lu efficace rek mën wax tamit euh, am na lu ñu gis tamit mooy wax naa ko mooy formation bi ñu wa bi ñu am formation yi dojo la plateforme bi ñu gis tamit loolu tamit dal la donc maa ngi profiter di féliciter le directeur général de la police ak euh, ses collaborateurs ndax liggéey bu rafet lañu def lu ma gis mën na wax ne le président de la République Macky bëgg loolu lañ fi liggéey di leen encourager ñu gën a def seen liggéey te xam naa ne résultat bi nga xam ne loolu la ñu bëgg mooy la modernisation de la police sa montée en puissance.